الشعر ولازم مذهبي واقتراه الرفد في الدنيا أقل فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل أنا لا أختار تقبيل يد xatoha ajmalu min tilkal qubal in jasadni amadi sirtu fi risqiha awla fa yakfini lxajal adabul alfaadi qawli laka xut wa amaru lafsi nutqi bil am ñu jàng loolu dafa ne na nga jàng naxwu ndax moo lay ñoŋeel ci yàq baat wanzim te na nga wëy na ngay noose hmm. assiara wëy hmm. te itam na ngay wëyantu hmm. wala sim na nga tëqoo masab yi sama masab ñenn ñi dañ ko def bañ daa am yuñ caa wax waaye nee na moom lii gis gisam mooy wëy moom baax na fattiraahu rif di sànni xontu fi duniyaa ci àddina aqallu moo gën a néew bëri na connaissance buy dafa niru taxawaalu hmm. lam nekk buñ ko ci joxee dara mu jël hmm. waaw li ëpp ci nit ñi hmm. du leen jox dara ñi gàntu waaw fattiraahu riir di sànni xont sànni may fi duniyaay ci àddina ñu jox la nga ne déere loolu àqal lu moo gën a néew bëriwul waaw bëri na connaissance wéy dafay niru taxawaalu te fekk loola muy sikkalee wéy te woon moom lam nekk buñ ko ci joxee dara sax dafay jël de boobu moom hmm. on waa nun adresse la hmm. alal fadli ci ngëneel hmm. woy day teg la ngëneelal ki ko def ñaare foo fekk ko def mu rafetal ko rek lu gën a bëri ci moom lu gën a bëri xel mu sotte ngi ci moom dégg nga wa siaru la a'taadu anhu wala an kawafihi ma koog dara ay xaafiyaam ak ay fànnam yëpp laa wax ida kaana min maana soxor istiqaaquhu su fekkee soxor la bàyyee ko te soxor mooy yëg mooy liy xaajale nit ak nitaal su dee ci la baxoo fama baxtahu lil mari xayru junooni kon kay bu fi nekkul junoon moo fi noonu la ko gisee moom hmm. foo moom way hon waanun adresse la hmm. al fadli ci ngëneel hmm. wama lëf lu màgg ahsana rafetal na mu ab chenre way ida lam yub tadal ndegam suufee suuko way boo ko wanteeru mu ne ak xam solo mooy tagg ko jar da tagg loolu xeet la ci toroxal way yaa ngi dégg nga hmm. ndax tagg koo jar soo ko defee hmm. doo mën a mucc ci fen hmm. te wax ji ci gën a am solo mooy ne ku ko dégg xam ne dëgg la wa inna ahsana baytin anta qailuhu baytun yuqaalu ida amsattahu sadaqa mu ne woy wa ci gën a rafet mooy woyoo xam ne boo ko ku ne ne dëgg ku ne ne dëgg ku ne ne dëgg foo moom on wàllum adresse la alal fadli ci ngëneel wa maa lëf lu màgg ahsana rafetal na mu absiara way ida lam yubtadal ndégam suufee leetu ko moo suñu ko wanteerul teguñ ko fu ko jarul maata deena ahlul fadli borom ngëneel yi lam yabqa desatu fi siwa mukrifin dara ku suufe askan aw man wala koo xam ne ittaka la sukkandeku na mu mm. al asli ci cosaan mm. fekk na jamono bii sax mm. ñi xamee melokaan yu xeyoo yuñ xeyoo ñi leen taggee ci wëy dafa mel ne xamuñu sax daanaka nit ku kenn xamul rek wala nit koo xam ne tey bu yëngatu yëngatu yu rëy it xamoo démbam wala koo xam ne boog démb rek la mën a damoo waaye tey man dama ne lu mu def ma loolu la fees dell dafa mel ni ñu fi mën a wane duñ def. Hmm. xamuñ seen démb. Hmm. ñu fi xam seen démb. Hmm. démb ji leen xamal rek lañ mën a wane. démb yëfi keneen la. fa fa xayru naasi. su hasabin qadimin. aqaama li nafsihi hasaban jadida. ne ku am hasabun qadim. taxawalal boppam hasabun jadid. kooku moo gën ci maata deena ahlul fadli ñooñ ngëneel borom ngëneel yi mm-hmm. lam yabqa desul si waa muqrifin ndare ku suufi askan mm-hmm. aw man walla koo xam ne mm-hmm. ittaka la sukkandiku ne mu rek al asli ci cosaan ana man laa axtaaru déet may tànn takk bii la yeddin foon loxo bu xam ne xadon haa daggam ajmal moo gën a rafet mm. min tilkal qubale ci yooyu lay foon mm. mooy loxo boo xam ne dagg ci xëy ma mm. di ko foon di ko macc loolu du ma def koo xam ne yar ko lañ war a def maa ngi ko yaba koo xam ne yar ko lañ war a def maa ngi ko yar bi gën loolu du ma ko def waaw loolu du ko def koo xam ne yar ko lañ war a def maa ko yar bi gën loolu gis bu baax a baax. Hmm. waaw ku xam ne yàq rek la fi ne yar ko lañ war a def. nga am hmm. ko yar nga hmm. loolu du ko def moom. ana man laa xaba laa xaaru den may tànn. takk bii la yeddin foon loxo. boo xam ne a daggam. ajmalu moo gën a rafet. mintil kal xubale ji yooyu lay foon loxo boo xam ne dagg la xeeyoo. ma dem di ko foon ak a màcc. loolu du ma ko defal kenn waaw. in jasat nii su ma mayee mm. su ma fayee mm. ci tagg yi ma koy tagg mm. surtout ma mujj fii riqiyaa ci njaamam rek awla wala fayun ma fayak fii ni dana ma doy alxajadurus ko xeyow bu tagg soo ko taggee su la mayee rek dig lim la jox su la mayu da ngay perte ñaari perte nga ci sa diina ndax fen nga perte hmm. nga ci sa ndax sa yëngu dara fekku rek on hmm. dafay hmm. in jasad nii su ma in jasad nii su ma fayee xam ma di ci sama tagg surtout mu mujj ci riqi haa ci wala fayuma joxuma dara fayag fi ne dana ma day alxajiru dafa mos a dem Gàmbi mm-hmm. am ko dajeeg moom koo xam ne jamono boobu mm-hmm. dafa doon président maye président bu jógee bu yàgg boobu fa nekk mm-hmm. am ko xam ne jamono boobu mu ngi jëriñu ci moom ne ma dama bëgg nga defal ma xasida ci ay jàng moom du mu ne ma xam naa la ma ne ko man kon may wax nii waaw loolu moom wax may wax xam hmm. nga man du may béy mu ne xam naa dama ne kon lii li may wax ci hmm. hmm. <laughs> ko li ko waxee nii ku ñu waxoon ne yaa koy tàgg yaa ko tàgg loolu na ma naka laa tëdd ku ñu waxoon ne yaa ko tàgg naka lay tëddee la bu baax a baax bu baax a baax man kay gannaaw ñaanu ma ko calam calam ko doon jox wax dëgg yàlla jarul nag mu dugal ci ay fen yi ma xamul nag wax dëgg la mu ko doon man ñaanu ma ko ci wax dëgg mayu ma ji waaye ñaanu ma ko ci waaw projet bi ma xaajale benn wër mu ngi jëriñu ci moom wax na ma yu ko defal waaye yëpp xam nga lu wéy mu nett leen ma ko rek in jasar nii bu ma fayee amadi ci sama tagg surtout ma mujj biiri xiyaa ci awla wala fayahuma dara fa yekk fii nii dana ma doy alxajaru rus adabul alfaaz yi gën jaay neexi baat xawli mooy wax sama la ka ñaal la ne la xus jàppal wa amar laf yi gën jaay weexi baat nutqi mooy sama tudd bi la àll la toon lañ ci jamono boo xam ne ku lay jëriñ sooy boo ne la am rek la ko fekkee lam la wax am nga xam ne mooy sa muut hmm. waaye ku la dig hmm. daanaka dig baaxul solo hmm. sol nañ jamono boo xam ne daanaka dig amul solo adagul alfaati gën jaay neexi baat xawli yi mooy sama wax la ka ñaa la nee la xuut jàppal waa mor lafti gën jaay wexi baat nag nu tuqii mooy sama tudd bi la la àlla mooy xëy na yaakaar la kon ñu jàng loolu ba beneen yoon incha allah ñu jàng te itam yu bëri hmm. ku doylu rek hmm. mën dal hmm. mulku kisra nguur ak kisra gi tuux nii dana doy kisratun damitu mburu xanu wëlis ko nguur ak ga la muy rëy rëy borom li muy lekk ci mburu xëppu liñ de lekk eh, ah, yu bëree bëri boo doyloo wacci saa un doyloo xanil hmm. bari walit géej hmm. bil wasali nekk na ci tepp tepp wasal mooy taataa bu ndaw mu ne naan rek hmm. jarul dem ba ci digg géej gi soo demee ba ci digg géej gi itam li xaj ci sa biir bi rek moo jëlee waaye bi ci xajul du ci dem te wóorut coono ngi ci dégg nga naan rek rek jarul ba ci digg géej gi soo demee ba ci digg géej gi itam li xaj ci sa biir bi rek moo jëlee ak lu tax bëri ba loolu rek ma jaay dem te loolu ko baax te coono gi ci wóoree dee ngi ci kon kay fi nga xam ne ndox mu la maan loolu doy na waaw xam ne bëggee rek waru cee am si góor war sa gëm rek lay am waaw kon yàlla ko jox li muy wéyee naa am li ma teg doy loolu ma moo war a nekk am na yoo xam ne bëggee rek waru cee dugal si góor ndax coono la te wóoru te ne yokkul ci war sa dara mooy li wax naan rek rek. jël hmm. dem ba ci digg géej li fees ci sa biir hmm. li xaj ci sa biir bi rek moo cee dem. Hmm. soo demoon ba ci digg géej ga. nga fa ngay naan. li xaj ci sa biir bi rek moo cee dem. waaw wala boobu lu ci xajul bu ca demee yow nga dee foofa. xam nga mooy am. <laughs> waaw mbuuru te kon bu ñu amee ndox mu la mandal naana rek te doyloo ko. waaw yu bëri bëgg waru nit waaw. ay coono lay do rek te itam wóorul te nag yokkul ci war sa dara loolu moo tax yokkul ci war sa dara mulku Kisra nguur Kisra tooni dana doy mm. han hu ci moom Kisra tun dammi tumburu wacci mm. saa un doyloo mm. anil bahri walit géej bil wasale nekk na ci tepp tepp tepp mooy taataa su ndaw i'tabir nahnu qasamna baynahum talqahu talqahu haqqan wa bil haqqi nasal ñu jàng loolu i'tabir xalamal nga settantal bu baax nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum borom bi mu ne ñun yàlla ñoo séddale kenn ku nekk lu mu xam rek na xam ne ñun ñoo ko dogalal ne loolu laay am waaw da nga gis nit ku réer a réer te lu ne mu dajale ko ci alal hmm. nga gis ko am xam-xam hmm. te kër gum dëkk sax mu ko day luyee hmm. loolu bu baax a baax waaw dañ ci gën a xamee ne gi toppul xam toppul réer mu ngi topp ci dudle yàlla rek mu demee dégg nga war rek yàlla mooy koy séddale amul nu ñu de def nag ba am lu ëpp liñ ko sédd amul nu de teyee nag ba tax liñ ko sédd dara te bil xalamal nahnu xasam naa baynahum hmm. soo ko defee talka woo da nga ko fekk xaqan muy dëgg gu leer nañ hmm. ko bil xaq te ci dëgg it nasala la wàcc de hmm. da nga xam ne dëgg la de wax nañu jàng loolu